nuyu nañ la. <coughs> fay naa la soxna si. <coughs> man da ngaa joué ba baat bi de. non joué wu ma maay coach bi. yaa nekkoon coach bi. maay coach bi man maa Aliou Cissé fii nii maa Aliou Cissé acteurs yi. tey nga doon gisee sa joueur yi. waaw sama kii tey woon dañoo wane seen bopp quoi xam nga gars yi ñëw nañ Dakar benn jour ñun motuñu woon jël yeneen joueurs yoo xam ne bokkuñu suñu équipe gars yi xam ñu patam patamee vite fait foo ne ñun lañu dóor te ne woon nañ leen suñu équipe ñëwagul te nii sax gars yi ñëwaguñu de ñu fekk leen Thiès doon leen 2-0 donc voilà. kon retour dina amaat. non non amoon na ale waaw wax nga dëgg bi ma ale bi sax mais bee baaxul la bi ma ale bi nga tuuti am ak incha allah j'espère que di ngeen ñëw. naka nga gisee initiative bi tey ngeen ànd nekk ah, vraiment vraiment vraiment vraiment même man en fait li yëpp xalaatuma ko woon en fait gën a xamante am ay liens yu ñu am entre ñoom parce que dañuy séenante ay télé mais ñu si donc ce genre de chose daal day dundal art bi day tax gars yi gën a gën a gën a dund daal te day neexal lu bëri te fan si bu ñu gisee gars seen seen day kontaan parce que c'est un exemple en fait. li may wan ne gars yi ñëpp benn nañu ñëpp ay ndey ak baay nañu comme des frères et sœurs donc on se voit des des fois échange on passe de bons moments gars yi kontaan ku nekk demaat sa yoon encore. instant bi la mën a xaar parce que fans yi. nga ni. ci lan bi projet yi. mais instant yii maa série yaay bi waaw si beneen projet bu noo commencé nii nii nii nii xaaral ko télé am benn problème. dina mel comme d'hab daal. comme d'habitude kanam yu bees rek waaw. yeneen facette nga ñëwoon. non non xam nga man ma jàppee gu soxor alors que je dama cool quoi dama cool xam man dama ma jàppee. salaamaaleykum. kii kii sama eh, ay kaay kaay kaay kaay kii wérul xam nga kii wérul mais c'est mon ami mon frère ñun nag lii dañu xam foo ñu fekk dañuy kaf fooree ku nekk bu demee si ko job di nga job. fay naa la. tey nga joué lu rëy mais taxul nag waa Dakar moom gañ kon joué naa nii non pourtant man joué ma de. damaa nelawul damaa sonn mais Dakar waa tey moom Dakar daf ñëw mën gaño yu nangu nañu nekkul ceeb bi ngi leen jox moo neex waaw mën na am non du mën sax xam nga tey moom des fois waaw des fois da ngay ñëw du baax waaw tey moom journée bu baaxul la quoi tey naka nga jàngatee lii mu neex ngeen bokk li ngeen di def daal di àndandoo jouer affaire di neex ka fooree lan nga ko jàngatee mais xam ni lii mooy àdduna rek ñun ñëpp ay doomu aadama lañ mënuñu ko weesu ñu bokk métier bi ñuy def bokk liggéey bi nit nag boo bokkee ak nit dara waa da ngeen war a bokk ndey bokk baay xam ne lii yéen ko moom téye ko saafonte doon benn loolu rek a ci am solo dañuy joxe exemple rek wane ne artistes yëpp benn lañu amul xaar ma yàlla ñun ñëpp benn lañu. c'est milieu bi. waaw nice bi cool ah amuñu problème de ñu ngi sant yàlla bu baax nag milieu bi moom cool macha allah waaw. laay ci appartement lay ak Fatou Kiné boo ñu mënee ci séquence bi. waaw de moom dafa ma sono rek Fatou Kiné de nit dara xale sellal ndax na woo ma takk ko muy indil may problème loolu la rek. sama copain ngoog dox doxul doxul daa sonn daa sonn. da ngeen a a bii da ngeen ko teel a encaissé da ngeen a teel a jël ñaar kenn mënu ko dindi. dañ koy tëggaat dañ koy tëggaat jabaram ji mu ji uuf ci dënn ji di wax ak moom laa xam ne Abba dootul dugal pit loolu moom man xam naa ko. gaaw Abba dootul dugal dama ko daan uuf ñëw di dugal su ma ko uufee ñëw dugaluma ko daan uuf di dugal da ngaa nelawul da ngaa nelawul jël meen lay ñu war la ñu ñu mën la xaar ci lan jamono ji ci lan nga nekk waaw am am na lu may préparé yoo xam ne semaine bi war nañ tourner incha allah waaw mu nekk lu neex lu sénégalais yi di xaar waaw ñu xaar ko rek. saa su génnee sénégalais yi bëgg la loo def mu neex leen ñu naan laay laay foo dem tamit ñu ràññee la fa naka ngay dundee loolu. ah loolu day xanaa sant yàlla suñu borom rek parce que ñooñu dañu bëggee ñoom dañoo baax rek ñun ñoo leen war a bëggee parce que ñoom ñoo seetaan. bu dul woon ñoom ñun li ñu doon duñ ko doon kon ñoom la ñuy gërëm di leen sant comprendre nga di wax aussi lu ñu liggéey rek dañ koy xeeb ndax public bi ñuy seetaan ñun ñoo amul seen fay léeg damay gis artiste di yëkkati mbagg di wane boppam waaw daf may jaaxal daal parce que ñun li ñu doon ñi ñuy seetaan ñooñu ko ñooñu ko def kon ñun ñoom lañu ñu war a sant ñoom la ñu war a gërëm. lan ngay wax ñi lay seetaan. waaw di leen ñaanal yàlla ñaanal ñëpp gudd fan ak wér. jàmm ak salaam ak xéewal ak teraanga ju saawaan baawaan Sénégal yàlla def fi jàmm ñun ñëpp benn lañu nañ bokk ndey bokk baay bu ñu kenn jaxase amul xiiro amul ŋaayoo vive le Sénégal. merci beaucoup. Baale am ngeen jàmm. gañe nañ ñu. yàlla. waaw ñu ngi leen waaw ñaanal nañ leen waaw lii dama yàgg naa am. lii day wane ne képp koo xam ne fa nga nekk sëkkal ak ña nga nekkal jàmm ñun artistes yi am nañ jàmm de ñun artistes yi ñoo bokk ndey bokk baay waa Dakar a ñëw yendu su fii añandoo ak ñun kaf ñun ree mu daal di jeex kon yéen ñi nga xam ni journaliste yi mbër yi basketteurs yi bokk leen ndey ak ñun bokk nañ ndey ak baay de te ñun ñoo leen di bégal ñëpp foo dem ngay sëriñ ak loo munti doon ñun ñoo lay kon nekk leen ci jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. waaw yow sa sa kii ñu ngi koy xaar sama classe. waaw kon kan laa war a classe. kan nga war a classe. kan nga war a classe. abaa sama doom la nii. kan ngay classe. moom la lii xanaa dib li mu wax. nee na doom lañ. abaa sama doom la. parce que parce que fan yi gis nañ li xew ci réseaux sociaux yi waaw gis nañ nit dugg na tàgge la ne da nga génn àdduna mu métti sénégalais yëpp parce que ñu bëri xawoon nañu ko gëm naka nga gisee waaw loolu sant yàlla rek waaw sant yàlla ndax xamaa amaana artistes yi bëri nañ bu demee ba tàmm ma tàgge ma am na lu mu bëgg waaw comme moom da doon defar waaye daa daa gën a taal parce que tey koo musuloon dégg rek dégg nga ko lu moom damaa taal daal waa ji ta waa ji ree damaa taal daf maa gën a yokk c'est que man samay mbir boo koy ñaawal day yokk noonu laa la. lan moom ñaanal ko jàmm ki ma tàggee woon wax maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram comme liggéeyam moom ray rek la ray rek la yàlla na sa jàmm yàgg malaakal mawti yàlla na sa jàmm yàgg yow malaakal mawti tiktok yàlla na sa jàmm yàgg jërëjëf euh, sentiment bu ma animé alhamdulilah commune parce que bi waa Thiès ñëwee Dakar waa waa ñoom ñoo gañe tey ngeen ñëw waa Thiès bàyyi ngeen gañe est-ce noonu. xam nga Thiès dëkku teraanga la Dakar tamit noonu dañoo ñëw ñu teral leen bàyyi leen ngeen gañe ñu <laughs> yéen tamit suñ ñëwee da ngeen naa ba da ngeen ñoo bàyyi ngeen ñu ñu gañe leen. donc loolu moo ci rafet mais au-delà de ce match am na lu importance mooy symbiose bi am ci biir artistes yi amul septième art amul arco amul dara donc loolu noonu si a féliciter à saluer et à aussi. que ñëpp ñu jàppale leen ay ndaw bu ñuy dem di dajaloo dañuy bëgg gouvernement bi teg ci loxo mais par teg ci loxo bu ànd ak politique mais teg ci loxo bu cest bu transparent et et si si soxla quoi mais tey moom kontaan nañ quoi bëgg nañ franchement. mais tey bi ngeen ñëwee Thiès est-ce que sentir ngeen ne autorité yi euh, euh, génn nañ ni ñu war a génnee fii ci biir Thiès. ah franchement nag xam nga moom autorité et bi may su ma gis en fait du match autorité du match autorité. nous ne sommes ni pour les autorités nous ne sommes pas apolitiques on est venu en tant qu'acteur bëgg a fos suñu biir bëgg a kaf suñu biir loolu rek moom moo ñu animé et c' est dangereux bu ñu ci bëggee dugal léegi autorité politique xaalis et c' là où ça va casser on veut pas merci beaucoup. merci. tonton As ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax di la siyaare. Hmm. naka gisee match bi Thiès Dakar. waaw kontaan ci rek. di wax ni affaire bi moom naan guy yokk mar rek artistes yi fu ñu daje moom dafa neex rek lay def buñ fi doon toog ba suba di ko def kenn du découragé kenn du bàyyi. Euh, def nañ ko nag ci ak jàmm ak salaam gagné nañ ñu mais ba tey mel na ni ñun ñoo gagné ndax ndam li génnul artistes yi mu ngi noonu. tey boo gisee lu rafet lii di am te duñ ko gis ci ñeneen ñi. Hmm. naka ngay jàngatee. waaw moom damay wax ni ku ko dul def boo gisee ñii di ko def war nga ci xool xam ni aar ñun ñëpp benn lañu te Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mosoo fi gis artiste bu fi joué sénégalais bañ ni léegi doon na cap-verdien ah wala doon na ñàkk lépp lépp lépp sénégalais ngay doon. kon nañuy xool ci lii di rafetal ñi jiitu dimbali ñi ci ginnaaw affaire yooyu Sénégal jëm kanam. gisee milieu bi. waaw lu nekk ngi ci daal. milieu bi daal fi mu ne dama lay wax ne la dara bu njaxas la rek lépp a ngi ci mu ngi noonu. tey ah, ah, wax sénégalais tey ni As moo leen gën a bëgg li muy def lépp pour bégal sénégalais la rek lépp ñu bëgg nañ ko yokk xam ne man maa ngi leen di gën a bëgg incha allah. lan moo xam nga liggéey bala moo neex ñi ngay liggéeyandool ñu dégg man mën naa ne As déggul mais ñi muy liggéeyandool moo ñoo ñoo dégg lu ma def ñoo ma ko def loo lu ma wax ñoo ma ko wax loo. non yéen da ngeen a seetul Fodé ma lëjal xale boobu toppe na ma mbooroo ki lëjum li jëndi leen loolu. dañ ci lan lañ la mën a xaar mën nga ñëwaat ci beneen facette même bu dul commune. waa yëpp parce que lii nekkul loo xamante ni dañu xëy rek ñëw dañ ko jàng jàng nañ ko ba mokkal xëy na nag gars yi dañuy gis ni comédie bi ñu soxla mën nga ñu ko defal mais am na yeneen facettes yoo xamante ni nañ ñu ci xaar dinañ ci ñëw yu bokkul ak comédie. léegi yàggatul. nga jàngatee réew mi. fan yi situation bi classante yeeg waxante yu ñaaw. nañ bàyyi yooyu nag nañ bàyyi yooyu xam ne seen i rakk ak seen ginnaaw war a gis exemple bu rafet bu ñu ko gisee ñoom defe ne lii mooy affaire bi ñoom bu ñëwee ci loolu la ñuy dox te jëmalewul yëf fi kanam nañuy rafetal nit boo jiitoo da ngay sóor ñi ci sa ginnaaw nay rafet. man loolu kontaane naa la.